ñu yeggal leen ci ay xabaar yu ñeel diggante Israël ak Hamas ak itam leen ci xabaar yu ñeel tolluwaay ci diggante Israël ak Iran comme ni ñu leen ko diggee woon donte nag tàmbali naa guddi ndax fi ne minuit jot na ba toftal juróomi simili kon mën nañu wax ne ñu ngi ci alxamis fukki fan ak juróom-ñett ci weeru avril laata loolu ñu wax leen ne 77 wala wala 76 128 84 48 76 wala 77 128 84 48 mooy numéro bi ngeen di jaar ngi dugg ci groupe Mouhalim info yi. auditeurs yi Maalum Info wax waxet manees na koo jàppe noonu lan jàngate ci kàddu yoo xam ne Joe Biden yëkkati na ko tey jii xam ngeen ni daa waxoon ne Israël bu bëggee attaqué réewum Iran na xam ne moom moo ko def sël ñun duñu ko jàppale waaye de loolu mu waxoon a kàddu yi ñu gisaat ci Al Jazeera mu wax ko tey daal wax waxet lañ ci mën a jàpp ndax daal moom nee na Iran li mu bëgg mooy far Israël complètement ci dénd bi waaye tam daal di fal far mboolem luy xeetu yahut ak yu ni mel ci bi yëpp ak ci Israël nee nak lolu motax kon bu setan Israël bu nak Iran dafa jëlu dogal intensifier yok baax a baax attaques yi muy attaqué Israël États-Unis daanu ñew jàppale wa Israël te kat mo ne won mom nee dal guerre bi Israël bëgg def digënté mak euh Iran d'accord gi te nee na ko bàyyil waaye day lii bettul kenn ndax ñu bari waxon nañu ne nañu xamne mom dal daal xam nañu xam nañu daal ni mu démé batay tey ca Israël sondage bo xamne ben université def nako ko bu nekk fële ca jerusalem mooy xayma ndax askano d'accord nañ ci xeex xeex bii dox euh, euh, maam d'accord nañ ci Israël daal di fayu waa wala di ci kaw Iran 74 pour cent ci doomi réew Israël nee ñu déet ñoom daal bu ñu sañoon loolu du am ndax ñi ngi ragal bu loolu amee rek jafe-jafe naa daal di euh, am te loolu dana rek lu doy lool. ministre turc bu yor wàllum jokkanteeg bitim réew moom daal nee na li nga xam ne mi ngi am fële ca kirim la yoo xam ne moo nar a yaatal guerre bi ci région bii ñu nekk te nag loolu yi am bi Benyamin Netanyahu moo ko bëggee noonu moo bëgg yaatal guerre bi ci région bi ngir wéy des ci bopp pouvoir bu euh, euh, Israël loolu la ministre affaires étrangères bu réewum daal di xamle jëmm ngi nii ju ju doy waar koo xam ne ay kàddoom moom euh, waaye laata loolu ñu ñëw ci am na itam benn responsable américaine bu wax ci Al Jazeera ne actuellement Israël fi mu ne nii ñoo ngi xalaat. option yu mboolem option yi ñu ngi koy xalaat fi ñu war a jaar ba tontu waa Iran benn ñu tontu ko ci biiram ci biir réewam wala ñu tontu ko ci bitim euh, maam ci biti réewam mën nañ koo tontu ci biir réewam que mën nañ koo tontu ci biti réewam maanaam daal xool faneen foo xam ne mën nañ faa jaar attaqué ko ngir tontu ko ci li mu leen def léegi dama wax ci lii mu doon bëgg wax léegi muy waaju doy waar ji nga xam ne euh, euh, moom daal xam naa ne bañ gimu bañ jullit ñi wala boog palestinien yi jéggi na dayoo benn xafiir moom mooy ki nga xam ne mooy wàllum kaaraange réew Israël moom daal nee na surpeuplé gi nga xam ne moo tàmbali am ci kaso yi réewum euh, Israël solution benn dong la ci gis mooy nañu indi peine de mort maanaam daal di faat ñenn ka ñenn ñi nekk ci kaso yi ñu faat leen. lañ ko jublu nag mooy palestinien ñi xam nga Israël kaso yi daa bëri ay doomi réew palestinien ñu in fa bëgg rek mooy ñu faat leen rek ci gàttal mooy kaso yi Israël yi xam ne fi ne daa fees lool. lam jàpp daal mooy nañu appliqué peine de mort rek faat ñenn ñi bu ko defee kaso yi mën a wéetaat moo tax sax wax na faneen daal ne contentement dëgg la am ba tey benn xafiir mooy wax de moo ñi ah, di wax xam ñu ci xabaar bi mu ne laa am lool bi ma gisee ah, dina wala boog dinaa kontaan bu fekkee gouvernement bu réew Israël nañu approuvé mooy daal ah, ñu yaagatal li nga xam ne moo di kaso yi ngir gën a mën a dalal terroriste yi waaye nag kaso yi itam li ci nekk bu fekkee daa bari nañ indi peine de mort peine ngir wàññi leen kon mooy daal nañu faat kon doomi réew Palestine yi xam ne jàpp nañu leen rek loolu tamit gi jamono jooju euh, nga xam ne mooy jamono ji ñu jagleel journée du prisonnier palestinien bis bu ñu jagleel ñi nga xam ne kon ñooy doomi réew Palestine ci kaso bi bureau di gouvernement de Gaza kon wax na ne daal junni juróomi junni ci ay nit yu ñu jàpp ca bande de Gaza depuis guerre bi tàmbale tàmbale léegi waaye saa jàpp leen ñi ngi dëkk di leen torturer di leen fitnaal di leen teg ay coono ba tey bi tam bokk ci ay xabaar léegi nañ bàyyi loolu wax ci lu ñeel diggante Israël ak Hamas tey jii itam kee xabaar yu ci am xaw naa tar ci Israël ndax fukk ak juróom-ñett ci doomi réew Israël am nañu gaañu gaañu ca ñooñee 14 ñi muy fukk ak ñeent ñi ay soldat lañu la leen gaañ nag mooy dafa am benn missile bu nu sànni mu dal ci benn bâtiment boo xam ne leen jege woon kon fukk ak juróom-ñett ci doomi réew kon daan ci am ay gaañu gaañu ca baan Dagasa la loolu ah, xewe ba tey ci lu ñeel diggante Israël ak waa euh, Hamas auditeurs yi Mouhalim info xaaral ma xoolaat waaw Benyamin Netanyahu daal nee na xiif gi ñuy wax ci bande de Gaza ñi di ko wax loolu kàddu lu dëgg moom daal nee na xiif amul ci bande de Gaza Netanyahu moo ko wax de jamono ji nga xam ne bande de Gaza daanaka amuñu lenn lu ñu lekk moom nee na bande de Gaza moom xiif amu fa Benyamin Netanyahu moo ko wax. Israël yi nañu bis bu set bis bu set daañu am juróom benn fukk cas yu yees yoo xam ne ay handicapé la ñu doon li ko waral nag mooy guerre bi. bis bu set daañu am gàtt gàtt juróom benn fukki handicapé ñoo xam daal dañoo handicap benn seen ay cër wala dara doxatul ndax guerre bi moo ko waral looy tam daal nañu koy xamle di xabaar yëpp yoo xam ne ñu ngi ko sukkandikoo ci al euh, jasira ba tey kàddu yi Benyamin Netanyahu daal muy muy layal li tax muy jàppale Iran ak euh, ñi nga xam ne kon wala bokk tax li tax muy jàppale Israël ak Ukraine mu ne Israël Iran daf ko attaqué dëkk di ko attaqué di ko tooñ ikram itam Russie def koo tooñ attaqué ko ñun nag comme réew ay xarit lañu dañuy taxaw défendre leen tubayul leen dimbali leen loolu la Joe Biden ba tey bokk ci xabaar yi nga xam ne ah wax na ko. yaakaar naa loolu mooy xabaar yi fi lu garaatoon de ko jàll yéege kon ma ngoog loolu daal mooy tolluwaay li ci gën a daal mooy wax waxeet boo xam ne kon Joe Biden wax na ko ndax ne woon na àndul ci Israël attaqué Iran bi yoon nag la mu wax mooy bu Israël attaqué Iran. wala boog bu Iran attaqué waatee Israël mu jug jàppale ko jërë ngeen jëf ma li muy